Malick Ndiagane maa ngi lay nuyu. maa ngi soxna voilà nga nekk maire bu Kër Socé président des migrants de la commune de Kër Socé secrétaire mm-hmm. général bu association Saloum Saloum Napoli Italie euh, mm-hmm. membre du Haut Conseil des collectivités territoriales déjà mm-hmm. euh, ñu lay laaj sa xalaat si phénomène u émigration irrégulière xale yi ba léegi ñu ngi jël mbëkk mi ñu bëri ñu ngi faatu bato yu bëri fan yi euh, ñu ngi leen di jàpp malgré ñiy faatu malgré sensibilisation bi tey yow noo ko gisee ak aussi ku yàgg Europe lan ngay wax jeunes yi nga xam ni jàpp nañ Europe daal boo fa xasee dugg aljana la Eldorado la comme niñ koy waxee ci tubaab. voilà merci madame donc comme ni mu ko waxee Malick Ndiéguène le maire de Keur Socé membre du haut conseil des collectivités territoriales donc je pense que question bi nga posé am na solo parce que je pense que la question bi nga xam ne moo jëm ci wàllu immigration clandestine donc dafa nekk question boo xam ne ñëpp la interpellé le gouvernement du Sénégal société bi ñëpp les parents tout le monde donc nekk na problème boo xam ne bu complexe la par rapport ak expérience bu ñu ci am waaye li nga xam ne moom laa ci wax rek mooy que jàpp naa ne ndaw ñi euh, dafa am euh, lu bëri bëri loo xam ne war nañ ko gëstuwaat. mooy ndaw ñi seen parcours euh, dès la naissance parce que maa ngi koy wax ci interview bi ma waa Rewmi TV invité woon parce que déjà ndaw bu juddoo encadrement bi ci war bu ñu ko deful euh, mu nekk ci diggante métier yi euh, métier bu nekk mu dugg ci te du fa taxaw du am patience day dema dem ba toll koo xam ne donc ndaw boobu bu demee ba toll ci diggu dooleem te amul benn qualification amul benn kii ndaw boobu pour nga téye ko problème la li koy desee mooy que mu forcer rek pour dugg ci ay gaal dem waaye nekk na euh, mbir boo xam ne gis naa ne aussi il faut ñu gérer aussi communication bi rawatina sama mbokki immigré yi nga xam ne ñoom ñoo nekk bitim réew parce que tey euh, bitim réew euh, mënuñu nekk rek di wax li nga xam ne moom mooy côté positif ndax dafa am aussi côté négatif bitim réew su defaree ay immigré tim am na ñu mu yàq am na ñu fa nekk ñoo xam ne ci ay jafe-jafe lañ nekk yàlla joxul leen fa dara ñoo xam ne association ya fa nekk parfois ñu leen di dajaleel di leen di cotiseel di leen di dimbale te loolu dafa baax nit ñi xam ko mais bu fekkee ne da nga nekk Europe ñu la wooyee téléphone yow coono ba ngay daj te man xam naa sa mbokk immigré liggéey ba yombut maanaam nañ nangoo sonnoo sonnee foofu ca Italie wala beneen réew nekk ci njaay mi mu métti lool bu dégg bëccëg muy taw muy naaj muy def la la nga nekk fi doo noppaliku coono boobu buñ ko defoon Sénégal tamit yàlla mën nañu dimbale mais su ñu nekkee ci coono boobu te bu la nit wooyee nga waxee ko noo xam ne mu yaakaar ne Europe ku ko demul rek doo tekki loolu aussi war nañ ko gérer parce que am na solo aussi bu fekkee ne nit ki day ñëw Sénégal yow la ngay dund fële nga dem jënd ay yére yoo xam ne yére yu baax a baax lu jënd ay jàll jënd téléphone boo ñëwee indi comportement boo xam ne Sénégal alors que la ngay dund fële lu métti la loolu war nañ ko seetaan la réalité en tant que telle. Hmm. de l' autre gouvernement bi euh, mu ngi def effort yu bëri mais dama jàpp ne rek ndaw ñi il faut ñu teel a jóg ci ñoom gën leen a encadrer orienter leen euh, bu ko defee jóg defal leen ay formation comme ça ñu am conscience parce que nit ki bu demee ba am fu mu toll amatul ci conscience li ñu def dafay naqadee waxal ndaw ñooñu nag su fekkee ne tey teel nañoo jóg parce que nit ki boo koy accompagner nit ku nekk mag. dafay naqadee waxal mais bu dee ndaw boo xam ne da ko teel a orienté dugal ko ci circuit boo xam ne mu nekk ci ay formation ñi di ko sensibiliser di ko orienté di ko wax risque yi fi ne kooku noonu bu yàggee dina mën a comprendre li nga koy wax mais de toute façon euh, bitim réew ci gaal yi euh, wax naa aussi foofu ñi nga xam ne tey état bi gën a renforcer euh, contrôle bi gën a renforcer sécurité bi s'il le faut point de départ yi ñu gën ko contrôler mais également ñu sanctionné ñu organiser euh, yooyu noonu parce que mënuñu bàyyi nit ñi ñu organiser di jël nit ñi di dugal ci ay gaal ñu dem ci condition yoo xam ne nit ñi di ci faatu loolu aussi tim war nañ ko revoir waaw je pense que loolu lu am solo la mais li ñuy toppati mooy euh, immigré bi su fekkee ne dañ koo seetaan muy dem ak xelam maanaam ak fu mu nekk moo xam ki nekk bitim réew moo xam ki nekk fii ki nekk bitim réew euh, war nañ ko fekki parce que parfois am na rek lu bëree bëri mën na ko fa téye comme ni ma la ko waxee en français nga gis kenn koo xam ne dafay jaay muy jaay jaay la ñuy def le commerce jaay ni ñuy def léeg-léeg ñu dajeeg ay policiers ñu jàpp leen mais buñ leen jàppee buñ leen yóbbee ci bureau yi dañ leen di fichier dañ leen fichier bind ay PV dem mais en général mun nañ la ko defal ay ci seen PV yooyu ay délits yoo xam ne sax yow defoo ko parce que li may wax ni dama ko xam bu baax mun nañ la defal ay délits yoo xam ne bu ko defee immigré bi moom dañ koy jox PV bi rek mu signé dem moom lu mu ne ngeen ñu bàyyi ko mu ñibbi mais en général sax mun nañ ko laaj mu joxe un faux nom loo tudd nga tudd parce que bu njëkk ba ñu bëri dañ doon ragal a génne seen passeport wala ñuy def ni wala ñuy wax fu ñuy dëkk pour que ragal bi rapatrier leen loolu mooy waral am na ñoo xam ne daan nañ joxe ay faux nom wala ñuy laaj la foo dëkk nga bañ a joxe adresse bi donc loolu bu amee ñu jox la PV nga signé dem ñu bind ci ay délits yoo xam ne yow loolu daf lay topp su la toppee. léegi léeg parfois yow nga dem ñibbi ñu bàyyi la mais tribunal dafay continuer l'état dafay bàyyi benn avocat boobu mu lay toogal ci audience yi mais avocat boobu su demee audience ba pare war la jox information fekk adresse bi ñu ko jox baaxul bu yónnee courrier bi doo si jot donc kooku noonu bu toppee ba tribunal bi condamné la mais loi bi wax ne am nga soixante jours pour def recours yow jotoo information yi xamoo yow ba nga ñibbee rek yaakaar nga ne mbir jeex na mais léegi bu condamnation bi définitive léegi nag immigré boobu mun na nekk dix ans quinze ans heure bu Italie defee décret pour maye kayit dafay déposer bu nekkee ci commerce il faut mu wuti contrat mu dem fay ay deux mille euros trois mille euros di def mais bu demee ba dañuy toll ci fu séjour bi war a génnee mais questorat bi dafay introduire tribunal bu ñu xoolee nga am ay condamnation séjour bi du génn te ñu bëri amuñ conscience ci loolu ñu toog fa di yàq seen xaalis di sonn toog fa di xaar séjour kañ la ñu am séjour ñooñu war nañ leen a orienté war nañ leen a wax war nañ leen a waxal li nga xam ne moo xew bu ko defee xaalis boobu ñu dajale ko bu ko defee bu ñu leen encadré accompagner leen ñu mën a ñëw Sénégal investir ko loolu tim danay indi ay problème tax immigré yi yàgg ci àll bi ñeneen ñi parfois mun nañu ñëw Sénégal bu ñu ñëwee Sénégal bu fekkee ne tey jii euh, jéemuñu topp tool critère yi nga xam ne moom mooy animé nit ki bala mu départ nit ki buy dem il faut ñu jéem a xam lan moo tax muy dem ban compétence la am ba muy dem ak yooyu yëpp léegi kooku ñu mën ko encadrer euh, man ko accompagner man ko orienter mais bu fekkee ne nit ki dafa am qualification ci benn domaine mu jóge ko fi dem Italie yàlla def mu liggéey boo am fa dara ñëw bu ñëwee Sénégal première SM kooku dañ ko war a taxaw parce que boo ko taxawul tey moom mun na ñëw ci ay waxi xaritam wala ñeneen mun na dévier compétence de départ bi ñu amoon mu dem investir ci beneen domaine bu mu maîtriser wut domaine boobu mu investir su ko maîtriser li ci ëpp yëpp dafay dafay am ay difficulté yàlla def léegi léeg mu nekk foofu toog fi un an ba mujj gi ci domaine yu investir du ko maîtriser ba xaalisam bi seey léegi nag jafe-jafe yooyu muy dund su fexeetee ba nga xam ne rëcc na fii mu dellu Italie kooku noonu pour nga gëmloo ko ne ko mun nga réussir Sénégal dafay jafe moo tax nag yooyu yëpp dañ ko war a éviter bu immigré bi wàccee jar na sax ñu créer de de centres d'orientation et information au niveau des aéroports immigré bi bu wàccee nañu ko defal benn entretien am léppam information am ay compétence am yëpp ñu man ko encadrer mu am chance pour mën a réussir donc bu amee espérance au Sénégal rek dina fi man a toog bu ko defee la mu am parce que man je parle en connaissance de cause am na immigré yoo xam ne yàlla seet na yàlla dimbale nañ am nañ ay possibilité mais jafe-jafe yi ma lay wax mooy tax dañuy découragé bu buñ demee bitim réew lu ci ëpp ëpp pour ñu ñëwaat fii wala ñu nangu fi investir dafay jafe bu ko defee nag dañuy toog ci àll bi ñeneen ñi fii aussi li nga xam ne tey jii moom moo fi nekk euh, ñu war leen ko encadrer dès le yooyu amuñ ko du ñu am qualification du ñu am dara donc euh, aussi amuñ patience dañuy toog rek gis kenn ku réussir nga ne man tey laa réussir wala nga gis koo xam ne am na expérience benn ans ci benn mbir tey nga bëgg a ñëw tolloog moom voilà de des des des choses qui pousse ndaw ñi ñi ñu ne tey danañ réussir ak information yi leen di jox ñu nekk bitim réew ñu jàpp ne ku fa demul rek doo réussir bu ko defee nag ñuy forcé di dugg ci gaal yi di def en tout cas daal maa ngi wax ne daal sama mbokk immigré yi surtout maire yi ñu yombalal immigré yi procédures yi délibération yi état bi gën a renforcer li nga xam ne moom mooy accompagnement bi ak formation yi ñu gën a jege immigré yi s'il le faut sax ñu def ay mission fekki leen gën leen a sensibiliser encadrer leen ñu man a am xel bu dal man a dëpp aussi ñëw Sénégal pour participer ci développement réew mi je que daal bu fekkee ne chacun ci ñun ñëpp ku ci nekk def na lu ko war mm-hmm. yaakaar naa phénomène bi dina wàññeeku bu baax wala mu jógee ko fi mm-hmm. loolu daal daanaka ci li nga xam ne waxoon naa ne dinaa ko ci wax donc euh, mu ngi noonu. Euh, léegi peut-être dernière question rek euh, Malick ñu laaj la ci groupe des émigrés bi nga xam ne da ngeen ko teg pour pour l'émergence de Saloum kuréel googu lan moo ko tax a jóg exactement. voilà groupe bi nga xam ne maa ngi ko créé les émigrés au cœur de l'émergence du Saloum. Mhm. bi ma demee Italie fan yi laa ko créé le vingt cinq juillet deux mille vingt trois parce que groupe bi li tax ma créé ko. Euh, bi ma nekkee Italie bi ma fa jógee bi ma fa delluwaatee def naa ay visite ci immigré yi dem naa fi ñuy demee di jaay ci marché yi dem naa ci ñoom déglu naa ci ñu bëri mais damay gis toujours toujours seen communication dañ koy accès ci état bi l' état du Sénégal l' état du Sénégal léegi nag man na naa leen état du Sénégal bi ngeen di wax nii daanaka li man muy accompagner leen ci procédure administrative mais yéen ñii am na ñu si bëri ñoo xam ne tey mën nañu financer seen bopp parce que xam naa leen man na nañu financer seen bopp ñooñu luñ soxla ñu accompagner leen sur le plan administratif waaye bi ma gisee ne aussi ñun ñu fa nekk euh, bu ñu dajalooyee ñun doomu Saalum yi maanaam war nañu mën a participer ci développement Saalum bi parce que dafa am loo xam ne man créé woon naa fa benn fondation bu ñu tuddee Fagaru Euh, fondation boobu ci jamonoy difficulté yi ñi ñi fay wàññeeku ak ñii am problème ñuy feebar du ñu am ku leen dimbale fondation bi moom moo doon jël en charge frais yooyu yëpp bu fekkee ni faatu na mu daggal la biir directement sans pour autant ñu def ay ket c'est parce que jamono yooyu crise bi laal na ñëpp ba nga xam ne bu nit amee jafe-jafe duñ mën a sax am xaalis buñ ko ëndee dañ daan wër mais bu ñu wëree tim du tax ñu am xaalis te aussi ko taxawalee participation bi deux euros cinquante la woon deux euros cinquante daanaka mooy xaw ma fukki dërëm par jour donc mu doon loo xam ne permettre nañu woon ñu jël en charge question yu complexe yooyu léegi nag bi ma gisee xam immigré xam ne aussi tamit buñ leen dajalee ak nu ñu ko mën a organiser ñu ko mën a defee danañ mën a participer pleinement ci développement réew mi particulièrement Saloum guñ dëkk ci laa créé group bi waxtaan ak ñu bëri ñëpp rafetlu ko donc groupe boobu noonu am na nekk Italie am na ñu nekk Russie am na ñu nekk Allemagne am na ñu nekk France am na ñu nekk Canada am na ñu nekk États-Unis am na ñu nekk Italie am na ñu nekk Sénégal donc c'est un groupe boo xam ne amul frontière ñi nga xam ne tey Saalum lañ dëkk nekk ci réewu àdduna bi yëpp ñu ngi ci di waxtaan ak ñoom ñu dugg donc ñu ngi avancé bu baax fas yéene nag waxtaan naka la ñuy def ba dugal suñu loxo ci développement Saalum bi mais également naka la ñuy def aussi tim ba gën a participer ci sensibilisation bi orienté yi ñu mën a investir même bu nekkul Saalum am na loo xam ne buñ ko defee na nekk un bon exemple je pense que bu nekkee un bon exemple boo xam ne réussir nañ ko ànd di solidarité di dugal suñu loxo ci développement Saalum je pense que beneen gox ci Sénégal wala ñeneen mun nañ ko roy ñoom tam pour def la même chose ci localité yi nga xam ne moom lañ dëkk en tout cas pour mieux organiser nit ñi ñu mën a kii parce que ñun toujours wax naa leen ko ñun dañuy agir individuellement un immigré Euh, ni ma ko jàngate dafay mel ni oto boo xam ne amul secours xam nga oto bu amul secours bu pneu bi bënni oto bi du dem du yaa ngi may dégg waaw maa ngi lay dégg bu baax waaw parce que oto bu amul secours bu pneu bi gën bënnee dafay taxaw c'est que l'immigré en général boo xoolee depuis parcours hmm. ñi nga xam ne def nañ fa quarante ans maanaam dafay mel ni benn yoon lañ topp maanaam boo ko seetloo ki nekk immigré yoon bi mu topp noonu amul benn feneen fu mën a jaar moom kenn mooy topp yoon bi depuis trente ans quarante ans amul amul suivi xalaatu lenn luy continuer moom bu tëlee bu tëlee amul leen li kon boo ko xoolee da ngay gis immigré boo xam ne topp benn yoon pendant quarante ans moom kenn mooy topp yoon bi amul kii moom mooy def mooy dindi su demee ba tele wala mu wàññeeku rek après yoo affaire yem fa. kon euh, loolu aussi tim mm. ay mbir yoo xam ne la war nañ ko bàkkal bu baax. boobu bu ñu ko teelee préparé. ah mu jéem euh, dugg ci canal yoo xam ne moom bu mënatul. ay mbiram dana continuer mais da ngay topp yoon boo xam ne yow kenn rek yaay yaay nekk yow kenn yaa nekk ci famille bi yaay dem yaay dikk. yaay dimbale yaay topp soo demee ba tële rek affaire yi arrêté donc yooyu aussi tamit c'est des choses yoo xam ne war nañ ko revoir mais de toute façon nous sommes en daal fexe ba immigré yi dajaloo maanaam ñu gën a dugal bien que ñuy dugal sax seen développement ci réew mi mais ñu dugal seen loxo ci li nga xam ne moom mooy localité yi nga xam ne moom lañ seq mais également ñu ñaan autorité réew mi maire yi ak ñëpp képp koo xam ne jóge ko nga bitim réew ñu dalal la orienté la dalal sa xel accompagner la pour que sa xel man ci dem mais xale yi bu ñu demee ba seen xel gëmatul fii nii pour ñu téye leen c'est tout un problème même boo ñëwee fii au niveau commune communes l'exode rural xale yi yëpp ñu ngi Dakar ñu ci ëpp ñëwatuñ nawet tout monde yaa ngi Dakar te loolu aussi des phénomènes yoo xam ne war nañ ci bàkkal fexe ni ñu retourner le retour vers l'agriculture état du Sénégal ñu gën a multiplier forage yi gën a fexe dimbale gën a renforcer ndox mi yooyu nit ñi retourner vers la terre pour mën a gën a bay loolu yaakaar naa loo am solo la waxoon naa ko fële mais également ñu bañ a fexe ba lépp lu xew rek ñu bàyyee ko état bi nit ñi aussi nañu bay lu lu xew rek ñu ne état du Sénégal nit ñi aussi dañuy am devoir ak ay droit nañuy def seen devoir bëgg a revendiquer seen i droit réew mi ñu ñëpp ñoo ko seq mënuñu def rek ne lu xew ñu ne état état mënul def lépp il faut que nit ñi di def ay initiative sociale di def ay initiative sociale donc man su may tëjee am na ay jafe-jafe yoo xam ne bëri na fi ci ay cas yoo xam ne da ngay gis xale bu feebar ñu war ko opérer mu war a dem ay millions njaboot gi duñ ci man dara ñu tiim ko bon c'est des cas très difficiles ñu def ba tax na sax euh, actuellement maa ngi en train de discuter sur un programme dans commune un programme social euh, pour wax ne euh, la population de ma commune c'est trente-sept mille huit cent quatre vingt neuf habitants donc man dama ne su ma dindee sept mille huit cent quatre vingt neuf yi jàpp ne ñi nga xam ne li may bëgg a wax duñ ko man ma jël trente mille habitants yi donc trente mille habitants yi euh, suñu cotisé ku nekk cinq cent francs ça va nous donner quinze millions par mois euh, nous nous on se retrouve euh, ci année bi cent quatre vingt millions donc je pense que loolu noonu ñu ko defee fii yaakaar naa avec moyens yooyu dina mën a dinañ mën a jël en charge ñi nga xam ne ñooy am feebar yooyu di am jafe-jafe yoo nga xam ne dafay laaj ay moyens yoo xam ne parents yi duñ ci mën a am dara donc c'est des initiatives yoo xam ne yu yomb la parce que cinq cent francs wax naa leen ko nanaa ne ku ko participer wut di ko yàq ci connexion yi wala nga yàq ko ci ay téléphone te du jariñ dara te cinq cent francs par mois loolu bëriwul euh, donc ma ciy waxtaan ak population bi ñu xool bu ko defee buñ ko defee vraiment comme ni ma la ko waxee dinañ am quinze millions par mois bu dee trente mille je pense que y a des yoo xam ne soo defee association sociale yu mel noonu ñoom dinañ joxe li nga xam ne moom moo ëpp ay cinq cent francs par mois donc kon on s'attend à ce que vraiment su loolu réussir euh, vraiment année bi dinañ dajale cent quatre vingt million dinañu permettre sax de l'autre côté ñu participer ci développement localité bi mais également favoriser sociale bi ba nga xam ne yenn jafe-jafe yu tari yi dinañ ko mën a assurer en tout daal maa ngi ñaax ñëpp ñu def ay initiative sociale bañ bàyyee réew mi lépp euh, vraiment di wax li nga xam ne moom mooy kii bi aussi te wàññi politique bi nag dañu wàññi politique bi. merci beaucoup euh, kon euh, Malick Ndiagane ñu ngi lay remercier bu baax a baax si disponibilité bi. voilà. di fàttali ne yow yaay maire bu Keur Socé président des migrants de la hmm. commune de Keur Socé voilà général de l'association Saloum Saloum Napoli Italie membre également ah. du Haut Conseil des collectivités territoriales